pour vous aider à réaliser vos rêves. Digital Store vous propose sa nouvelle gamme de smartphones et tablettes sur Android les derniers sur le marché digital. La tablette Core T4, le smartphone Core X4 et le téléphone flottant Shark X3 sont des outils qui vont transformer votre quotidien. Dotés d'une autonomie suffisante, résistant aux chocs, étanches dans l'eau, ces produits vous accompagnent dans toutes vos activités professionnelles hors de votre bureau. 33 ans. Contactez-nous vite dans nos boutiques showroom avenue Bourguiba 33 825 et à Sébédioune sur la Corniche Digital Store améliorez votre quotidien. dañ cee war a gaaw parce que fast track la ñu wax te président loolu la séntu ci ñun kon dañoo war a def fast track waxuma ko rek ngir li ma fa jógee parce que tey dañoo nekk ci loo xam ne nii c'est général dañuy wax ci wàllu Sénégal gi yépp ngir mu ñoŋ monsieur le ministre Kaffrine nekk département boo xam ne bu ama am solo la ci réew mi ama am solo ci économie gu réew mi tey bu fekkee ne dañoo am ci luñ jóge muy pandémie bi mu laal lu bari ci suñum réew président de la république ñëw ak ay projet ak ay programme am ak ay stratégie yoo xam ne nii ñi nga xam ne ñoom la fi teg ñun ñëw tënk ko ñu subir loolu ba résister ko waral nag relancer mu doon lu am solo monsieur le ministre ñu gis ko ne souveranté alimentaire bi wax na ci wax ci couverture sanitaire bi ñu war a améliorer capacité industrielle bi ma jóge ci gox bu buñ naan Kaffrine ma gis benn projet boo xam ne bu ama am solo la muy le Nanija Ballon ma di ko wax xam naa monsieur le ministre de l'économie xam na ci dara projet boobu tey bu ma taxawee fii di wax ñu ñu jëmmal ko ñu def mettre en œuvre bi c'est parce que dina nekk loo xam ne dina xeex li nga xam ne moom la ñëpp di di wax muy phénomène bi nga xam ne barça barsàq la ndax tey ndaw yi nga xam ne ñoo dëkk ci kaw gi ñooy jóg di dem di tukki wala ñi nga xam ne ñoo nekk fi nga xam ne amul ay industrie wala ñi nga xam ne jàppuñ ne war nañoo mën a tekk ci seen gox dara ñun nag ñu toog ca suñu gox doon ay nit ñu am jom la région de Kaffrine doon ñoo xam ne ñooy la grenier du Sénégal ñun ñooy dundal réew mi monsieur le ministre ñu bëggoon ngeen aménager foofu ba nga xam ne dinañ mën a bay 9 mois sur 12 ba nga xam ne dinañ mën a dundal suñu réew ndax tey bu ñu seetee eau des pluies yi bi ñu ko estimé ren mi ngi nekk si un milliard de mètres cubes loolu tey bu ñu ko jëloon tee ko am foo xam ne dinañ ko fa stocké retenir ko fa dinañu mën a servir que ñu ñuy ñuy bay ca fa ñu nekk di ñeneen di fa jógee ci fenn yeneen i gox ñëw di ñu di dimbale monsieur le ministre ñu di la wax ne rek wax dëgg yàlla président yi mu def lépp leer na nañ képp koo xam ne nag sa intérêt personnel moo la tax di wax wallaay fii boo fi toogee gàcce moo lay rey ba tax nga créer ay problème ba génn dem fii kenn gisatu leen fii jóg nañ ñoom ñëpp nit nag boo amee kuy liggéey dama koy wax dama koy waxaat tey soo amee kuy liggéey dama koy jàppale ba tax na monsieur le ministre des finances ñu jóge ca gox bu ñu naan Kaffrine ba tey rek agriculture bi gerte gi gis nañ président de la république commercialisation agricole bi mu dolli ci 20 millions fekk si woon 40 mille milliards mu nekk 60 milliards monsieur le ministre def ngeen ko ñuy ñaan rek ngeen baral ko fast track le président wax ba nga xam ne ñi nga xam ne ñooy les acteurs yi war a jënd gerte googu war koo commercialiser ñi ko war a transformer ñi ko war a importer ñëpp ñu mën a gis seen bopp ci loolu monsieur le ministre fast track ko xaalis bi na dugg ñu fay factures yi nit ñi liggéey Sénégal jëm kanam asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf